ay syndicat yu bokk éducation ak formation yu nek CNTS ñoko tenk yoyu syndicat ñu ci CNTS di woné, i seen i contenté ci féké bi fédération bi bi bi mai nous ngi ci ginaaw CNTS 1er mai également daf ñu permettre ñun fédération ba xamné ñu ngi a ñu bokk bolo don ben ñu booloo bolo don ben it am ay préoccupations yu porter.

benn question boo xam ne ñu ngi koy yëkkati ci langum syndicat d'enseignants d'anglais kon ñu ngi rafet rafetlu taxawaay ñëpp ñu ngi rafet lu it mobilisation ñëpp di jàpp ni incha allahu rabi ñu mën a booloo den benn doon benn say continuer di xeexal jàngalekat yi ci wetu CNTS waaye ci wetu camarade moo di moo di Guiro président de la comme ni nga ko waxee dalal nañu waxtaan nañu moom ci réew mi nu mu toll ba mu ñëw le 23 bi passé euh, wax nañu. am na am na am na bëgg na am taxawaay boo xam ne bi day day bëgg a régler problème mu liggéeykat bi waaye aussi wax nañu li nga xam ne moom la bëgg a jublu pour wàññi njëg yi loolu aussi yombul peut-être environnement bi ñu nekk waaye wane na volonté politique bi mu am leneen li nga xam ne ni moom la wax moo di bëgg na aussi waxtaan bi nga xam diggante liggéeykat yi ak gouvernement ak gouvernement bi mën a nekk loolu wax nañ tey nag ñu ngi défilé liggéeykat yi ñu ngi génnee seen ay revendications bu ngoonee daañu dajeeg moom ci suñu discours daañu ko génne li nga xam ne li mooy liggéeykat li ñu wax bi ci des li ci nekk mooy ay revendication salaire ay revendication njëg ay revendication droit ay revendication accompagnement pour formalisation li nga mu di taxi yi ñi ngi koy wax ngeneen ñu ngi koy wax liggéeykat yi aussi muy euh, enseignants yi mooy ñi nga xam ne ñoom am seen ay revendication ñu xaar donc loolu yëpp war nañ koo mën a waxtaan ak kilifa réew mi